Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko université Gaston Berger bu Ndar nga xamante ni am na beneen étudiant bu fa ñàkkati bakkanam Prosper Clédor euh, Senghor étudiant la woon ci licence 1 Euh, mujj ne nag euh, ñàkk bakkanam gannaaw ay gaañu gaañu yu mu jëlee woon ci manifestation ya doon am juróom-ñeenti fan ci weeru euh, février gi ñu nekk étudiant bi nag boobaak léegi dafa nekkoon coma ñu andi woon ko fii hôpital principal ak Ndakaaru foofu la mujj ñàkkee bakkanam muy ñaareel étudiant bi ñàkk bakkanam gannaaw alfa Yero Tunkara Ousseynou Diop. étudiant bi di professeur Clédor Senghor moom ci coma la nekkoon ci hôpital régional bu Ndar. moom nag juróom-ñeenti fan ci février ci jàmmaarloo yi nga xamante ni amoon na ci diggante ñuy di way takkadeer yi ak étudiants yi si la jotoon benn projectile ginnaaw ko itam mu daal di wan na benn produit boo xamante ni jóge na ci mbir mu nu mel loolu moo tax nag mu nekkoon ci coma ci hôpital régional bu Saint-Louis fii lañ ko xettalee ba mu yeewu ginnaaw gi itam ñu yóbbu ko ci hôpital principal ba nekk ca Ndakaaru foofee nag la mujjee ñàkkee bakkanam ci xibaar yi ñu jot produit bi nga xamante ni daan na koy nokki moo waral mu daal di fàttu ndaxte antidote bu ni mel kenn mujj ko am mu daal di fàttu ci hôpital principal bu Ndakaaru Prospère Clédor Senghor nekkoon étudiant ci licence 1 ci UFR sciences appliquées et technologies SAT ci wàllu mathématique appliquée ak science sociale ginnaaw Alpha Tunkara nag moom mii mooy ñaareelu étudiant boo xamante ni ci manifestation yi étudiants yi doon amal ngir ñaan ñu respect constitution bi moom ci la ñàkkee bakkanam lu ni mel tax na université Gaston Berger bu Ndar ay semaine a ngi ni lee jafe-jafe lay dund ginnaaw faatu Alpha Tunkara moom Prosper Clédor Senghor moo ci mujj ñàkk bakkanam